ma leen di nuyu di leen sant bu baax a baax tey dama ñëwoon euh, fii ci euh, maison de la presse euh, ngir joxe sama décision ci délibéré bi nga xam ne joxe nañ ko ci le 16 septembre ca Paris muy tribunal correctionnel bi. gis naa ne jugement bi daal ak procès bi awul yoon du procès boo xam ne respecté na suñu àq ak yelleef ndax man ba ma demandé nañ ko dàqaat. ba sama avocat yi nekk fi mu maître musa Sarr ak maître mën a fekkee ko dañoo bañ waaye dogal bi yëpp dafa amul benn logique ndax dogal bi dañ ma ne man mii Lamine Diack moom a yebal pour may wuti xaalis ci ay nit euh, ñu ne émissaire la donc ci ñetti infraction dañu ne complice de corruption passive complice de corruption active euh, complicité de recel loolu la ñu wax waaye teg nañ ma daan yu gën a métti yu Lamine Diack ñaari yoon donc mooy wane ne li ma demul wuy ji France moo tax ñu daan ma daan bu gën a métti ndax jàpp nañ ne dama défier seen seen autorité wala le fait que ñëwuma mais ñëw na yebal naa samay avocat janvier Ali Fall ak Moussa Sarr ñu fekk fa Antoine Boquier ñu constitué wu nekk ci dossier bi euh, loolu wane na que ñun coopéré na ñëw nañu moom fii commission rogatoire déglu nañ ma ñaari fan trente fanweeri question ak juróom la joxe ma tontu yëpp ñu jébbal ko France ñu dugal ko ci dossier bi kon nag coopéré na waaye Russie ki tudd Alexei Melnikov ak ki tudd Valentin Balanichev ñi nga xam ne maa ngi ñoom ñoo bokk nekk ay nit yi ñuy àtte ñoom ñëwuñu yebaluñu kenn mu nekk fa ñu teg leen daan bu gën tuuti sama bos sama sama daan seen teg kenn ki ñu ko teg daan ñetti at alamaan ko alamaanuñ ko ka ca des ñu ngi ko teg teg ñaari at te ñoom li li ñuy tuuma ñoo ñoo ñoo ko def te ñu xam ne ñi ñoo ko def ñoo ko organisé waaye ñun ñu ber ñu bëgg ñoo euh, euh, singili mag Lamine Diack alors gis naa ne tamit Habib Cissé ak Gabriel Dollé nga xam ne ay doomu France lañu ay ay français lañu ay sursis lañu leen teg kenn ki trois ans de sursis kenn ki deux ans de sursis kenn ki alamaan pendant euh, euh, euh, téeméer téeméer ak ñeent fukk junni yu euro kenn ki téeméeri junni yu euro jeex na leen nag après ngeen wéy waaye nag yéen sénégalais yi moom Lamine Diack ak doomam moom luñ ci mën dóor nañ ko donc loolu laa ñëkk gis la ca des mooy. dañuy tuumaal ne dañoo détourné xaalis ci recette de sponsoring ñi nga xam ne ñoo ma jox mandat ma wuti xaalis pour le compte de l'IAF ñoo xam ne la kenn dégluwu leen kenn mosu leen déglu kenn attewu leen kenn dégluwu leen waaye ñu ne ñu ñooñu laa àndal complot pour détourner xaalis IAF ci système boo xam ne la bi Diack moo ko mettre en marche dañuy wax lu leen neex détournement ak ay njuuj njaaj yu mel noonu ci fédération internationale mënta nekk Pape Masta Diack wala ay société mosuñoo facturé ci turu IAF mosuñoo encaissé xaalis ci turu IAF man li ma seq ak densu ak AMS ay contrat wane naa ko tey mandaa yi ma jot yu officiel pour VTB pour droit de télévision Chine ak Abu Dhabi dama jot mandat dam négocier ko ñoom lañ ko fay ñu fay ma sama commission léegi nag ñu naan li Massata gagné moo bari waaw man leen waaw maa ko indi <laughs> maa ko indi maa ko doxi léegi ñu ngi enquête naan dafa jënd ay montre France dafa jënd ay kii France waaw oh, sama xaalis la lew na ma sàccu ma ko dama ko ñàkk kon nag dama gis ne dogal bi ay tappale da cee nekk ak leneen loo xam ne mënuñu ko tudd ndax samay avocat yi nekk France dañ ne yàgg nañ ci droit pénal kenn ki def na ñaar fukki at ak juróom nee na musul gis lu mel ni musul gis procès bu mel ni te foofu lay liggéey te tribunal def na ñaar fukki at ak juróom Euh, nee na aberration économique la contre contresens juridique la ndax yii ñuy wax nii mais amul benn sens ñu ne da ngeen def ay pacte de corruption te ñi ngeen ko seqal ñoom kenn du leen déglu ñi déposé enquête ba Richard Pound Craig Reddy Olivier Nigli ñañ ko seqaloon di ko wax Yuri Nagorny ak kenn dégluwuñ ko Sébastien Coe bi mu wutu sam pap ñi seqoon di liggéey ci liggéey bi Nick Davis Essar Gabriel amul kenn ku ñëw wuy si kon nag damay jàpp ne vraiment ñii dañoo defoon enquête semblant enquête la parce que juróom fukki fan la ñu en def enquête bi déclenché information judiciaire enquête dañu ñeenti at ak genn wàll gis ñu dara ci li ñuy wax léegi ñu génnee yeneen tappale di wax ay waxu papa ji nee na lii ci doom yi euh, di wax naan gis nañu benn SMS euh, gis nañu benn euh, email man leen waaye yéen droit pénal li ñuy liggéey da ngay indi ay preuve du ay wax du ay foog naa walla dégg naa na nga naan tuumal nañu la ci lii daj naa ko mu ngi nii teg naa ci baaram boobaa dañuy rëq sa ndigg teg daan bi suñu ma ko tegoon tey ne ma masata gis nañu virement un million cinq cent mille euros ci sa benn compte PMD consulting bu nekk euh, banque sàngam bu booba man maay dem directement justice ñu tëj ma kaso ndax dañ dañ ko gis gisuñu tus bi ci mujj nag mooy bi ñu waxee ne Massata dañ laa bëgg tere liggéey ci sport pendant dix ans fukki at dootoo liggéey ci sport boobu laa xam ne nag ñii yemuñu ci bañ ñu rek li ñuy nit ku ñuul walla jéem ñoo sànq mais dañ ñoo bëgg sànq sax ne yow amatoo droit gañ a xaalis ci sport man def naa fanweeri at ci sport sama papa bi ñuy wax naan Lamine Diack ak Massata seen liggéey bi am na ñu ko fekkee 90 la ñu commencé liggéey ba mu nekkee confédération africaine d' athlétisme indil naa ko lu ëpp fukki milliards juróom-benn ci euh, ci sponsor ci période boobu diggante 90 ak 2000 ba muy jël IAAF man maa ngi Nigéria di jaay sama football football ëpp xaalis téeméeri yoon ëpp njëriñ téeméeri yoon commission yi ngay gagné foofu 20 pour cent la 30 pour cent ma ñëw. 2006 ci ndigalu Baye Cheikh Khady xalifa Daaru Muxti la sama Baye seeti ne ko damaa bëgg mas ta jàppale ma ma ne ko baax na comme nag ndigal la ah ma bàyyi waaye football bi sëñ bi adde yi may joxe falake ji la de neex na trop de bi ne ma ah, ndigal la damaa bëgg nga wut barke ci sa baay nga jàppale ko ci liggéeyam ndax nee na liggéey boo xam la ma tàmmal liggéey ak moom septembre 2007 diggante septembre 2007 ak ak mars 2010 nag indil naa ko lu tolloog 22 milliards juróom-ñetti at yi ñuy liggéey indil naa ko ci téeméeri milliards ñaar fukk te moom ak kuréel bi mu doon liggéeyal kii 5 pour cent laa koy facturé juróom juróomi pour cent kii 8 pour cent laa koy facturé te football maa ngi facturé 20 pour cent kon xañ naa sama bopp li ma waroon gañ ci football pour jàppale ko waaye am lu ma ciy jële ay nit toog fële complot li ñuy complot ñëw naan doom ji day gañe fii di gañe fële. waaye li may gagné maa ko indi xanaa euh, euh, même courtier yi jaay kër maa moom sama kër kii dafa bëgg jënd kër ma boole leen su ma leen boolee du ma ci am commission looluy courtage li may def nii ci sport loolu rek la fédération bi moom euh, événement am moom sport moom ay événement am moom droit télévision am sponsor bi bëgg am visibilité bëgg ñu xàmmee ko ràññeeku ci àdduna bi ma boole leen ñu jox ma sama commission 8 pour cent ñu ne loolu détournement la xaj sàcc la ndax xaalis boobu ci fédération bi noonu ma ne xaar da ngeen ma la ma demaloon comme ni ko la ñu njëkk tam waxee demaloon ma indi leen sponsor wut wuti ko dam toog ñetti weer Chine ak Japon ak Corée wër indi sponsor bi tegal leen ngeen naan ma waaw waaw góor jàmbaar nga xaa ñu fay la per jëpp ndax yaay doomu la muy jàpp déedéet maa bañ <laughs> kon nag la ma def ak la ma seq ak kuréelu bi Lamine Diack jiite du ma woon conseiller marketing wu président Lamine Diack conseiller marketing wu fédération bi la woon la ma seq ak Denso AMS ñu ngi fii ay contrat lañu lépp leer fépp lépp jaar ci contrat lépp jaar ci virement bancaire amul dara lu ci lëndëm du benn guerre ay fen la dama koy wax de la manière personnelle justice française dafa fen dafa wax lu ko neex enquête na gisul dara léegi ma ngay gën ay tàppale naan nañu enquête ci jeux olympiques yi nañu enquête ci championnat du monde yi waaye euh, ki indi euh, plainte bi agence mondiale antidopage ana lu yoonam ci atribusion jeux olympiques ana lu ci yoonam ci championnat du monde atu ana lu yoonam ci droit télévision ak marketing Sébastien Coe kii wudu sam ñëw taxaw ne man tamit damay dugg ci enquête bi mu ne ko yow auditeur Monaco mën nga auditeur su la neexee waaye ko euh, auditeur bokk nga ci ñi voté voté nga pour kii jàll nga ne noonu non non euh, mbir bi leerul woon parce que dégg naa société be ak société bi Qatar yónnee na la xaalis wala Japon yónnee na la xaalis ka suñu ko yónnee dafay te su ma jaayee kenn dara fekk lu moom laa ko jaay droit yi ñu may wax ne maa ko jaay maa ko jaay man lañ ko jox dañ ma jox catégorie yenn yi ma jaay ko dox nag dama bëgg wax sénégalais yi ne Euh, tappale yeeg ak wax yu lu noonu jeex na ba su ma dégg tey France wala justice française bi walla IAAF wala CIO wala AMA génnee lu dul noonu ci Lamine Diack ak Massata Diack man mii sama bopp naa dal seen kaw dama bëgg mu leer xam naa lu bari mën naa leen wax lu bari Lamine Diack ba su génnoon wax li xew ca IAAF CIO ak ni FIFA ak yeneen ak yeneen combat politique yu bari mais euh, CIO ñëppay daanu donc nag. dafay dafa doy tuuma gi yomb na ay gor lañu ay jullit lañu nangu luñu nattu euh, cat du jàmm borom cat de su rayul semmal euh, pexe doomu aadama am na waaye pexe boo xam ne yàlla dogalu ko nga ne par force day am moo leen dal ci ko yam yàlla jékki ci Covid bi dëkk yu rëy am doole am kattan mën lu ne biotechnologie arme lu ne am nañ ko waaye virus bi mënuñ ci dara yàllaa ko dogal ñun nag dogal yàlla lañu gëm. li yàlla dogal si ñun mooy am waaye du ñu bàyyi kenn mu ñu tuumaal ci ay tappale amul justice française la amul procureur procureur financier bu France tey Eliane Oulette ki yóbbu Lamine Diack ci enquête téyelu ko am na lu ko doy fu mu nekk ni inspection général justice bu France ñu ngi koy enquête moom mu bañ ne du déféré Sarkozy wax na ko ci TF1 journal bi ne kii may doon rëbb di moo wax kii justice nee nañu ko kaa ñu déglu la mu moo bañ duñ déglu tey nag aji taxaw fi di ma laaj naan lu tax doo wujji France ma nag eh, mënoon naa ko tontu lool ndax Eliane Houlet dafa la justice donc ay tappalekat lañu seen classe politique boobu moo gën a corrompu fi donc nag amuñu moral bu ñuy imposer nit ñi lii du procès wu moral procès wu droit pénal la mooy procès juridique judiciaire enquête judiciaire ak procès judiciaire da ngay junj tuuma mais dangay indi preuve teg waaye tey article Le Monde article L'Équipe suñu euh, xaju buntu kër bi nekk ci dëkk bi Libération xam nu mu tudd su fi journaliste nekkee moo ko ay xaju buntu kër ngeen lu ñu bind la ngeen bind ko waaye man sama téléphone mën nga jot information AFP wala AFP nga woo Massata man sax amul benn journaliste bu mu mos ma ma tëj sama téléphone wala wala bloqué la dama lay wuyu am na ñoo xam ne sama rak mu ngi fii dama lay ma nga wax ma li nga gis ma ne la ah mbir bi de xaw ma ci dara waaye am na loo xam ne xam naa ci dara xaw ma woon la yéeg génne sama coffre for wala génne say documents yu nekk sama salon ma génne ne la lii mooy version bi man lii laa ci xam soo demee bindal li li ko jot ak bindal <laughs> li ma la woon loolu wax parallélisme des formes waaye duñ ko def dañuy jot benn affaire rek bàcc ay ma jot naa lu toll ni xamee ci mas la Lamine jàkk lii moom ils sont éclaboussés damay toog jox xool éclaboussés que suñ ko doon def xam fan lañ koy def ca lañ ñu jiiñ na 3 millions 450 mille euros yu athlètes yi joxe ana 1 million 500 mille euros yi ñu joxe pour financement yàgg anam anam droit de télévision bi ñuy wax naan Russie wan naa leen kayit bi fii 1 million 200 mille dollars ñu bind ci ordonnance de renvoi ci kayitu procès bi ne 6 millions la dërëm par force. alors que naa leen kayit officiel bu télévision russe ak tontu bi Essar Gabriel ñu ne Habib Cissé ak Massata Diack ñoo ko négocier dañuy fen ak Habib négocier wuñ dara secrétaire général IAAF ci boppam tubaab la ni ñoom français la woowuñu ko ci procès bi du du moom Essar Gabriel bokkul ak euh, Pierre Weiss Pierre Weiss nekkul woon secrétaire général euh, mu ngi jeexal 2011 donc nag dañuy bàyyi tappale tappale jeex na. lu ñu wax ñu bàcc dal seen kaw ba pare boole ci ay plainte nag jot na parce que mën nañ ko man fu nekk nii li tax ma ne teg leen seetaan sama papa lu ñu téye maam war ma loolu ci moom am yërmande loolu ci moom lu ma defoon tey fu mu nekk nii ñu fay ko ci moom mais su ma doon moom na su suraale ginnaawam parce que wolof day wax naan ma pël koy wax sàmba du mën kanam man ginnaaw ah dégg nga pël yi su ñuy rëbb seen euh, ët euh, gétt dañuy doxee ginnaaw duñ ko jiit ndax lu ne si ginnaaw xam looloo ko dal ci ko wuutu moo ko wax yépp ci ay manipulation léegi nag sa gisee presse bi bari wax ji bari daf fekk nekk ñu ci dëgg ku nekk ci dëgg da ngay jël sa preuve dem ko tribunal constitutionnel doo Vladimir Mbek ba mu koy enquêté en un an mënoon na boucler enquête na la muy njëkk jot na ay preuve jot nga xaalis yaa ko wax jot nga waaw kon nag jot nga ko euh, gis naa xaalis bi allez ñun dañu leen correction teg la daal. waaye mbaralal yi le monde ki ard ay sit internet ki ay googa yooyu yëpp ay tappale la li ñu bëgg mooy suul jëfam Lamine Ndiack def na fanweeri at ak juróom-ñeent biir IAAF nekk na ñaar fukki at ak ñett vice président ginnaaw Nebbiolo ba muy euh, Nebbiolo dee jabaru Nebbiolo moo ko njëkk woon ne ko ah place bii de sama place jëkkër yow dong laa ko yéene dawal gaaw ñëw ñu seet nu ñu wutee ginnaawu président waaw mu ne ko dee doyu ma dañuy dem conseil ñu voté mu ñëw gars yi ko yow la ñu fal jox nañu ko ñeenti mandat wu ñeenti at kuy sàcc wala di luubal wala di def lu dul noonu ñu la jiital fukki at juróom benn saa na ñu waxante dëgg waaw su may dégg yenn ñi sax nit di ko bind wala di ko wax ak ñu xam seen Lamine Diack fii ci Sénégal am ñu ko xam fii conservation foncière la nekkoon noonu jaay suuf Cap Manuel ba Sébikotane su bëggoon riis luubal xaalis li ngeen di dégg tey scandale 94 milliards ak scandale moo ko gënoon yelloo moom da doon dagg suuf Cap Manuel ba Sébikotane fan résidence point E fi mu dëkkoon su ko neexoon uh, at bu ne mu daggal benn doomam wala jabaram 1000 mètres carrés wala 2000 mètres carrés tey muy jar 2 milliards ou 3 milliards dafa ko dooroom benn immeuble Sénégal ñu la njàkk moom man mii wax ak yow nii ak sama as tuut li ma am wax dëgg yàlla mënoo wàññil ma fi ay kër wala ay immeuble ci dëkk bi ndax ñun lenn lañu xam. wala xar karam naa banni aadama lu ñu am def ko ci doomu aadama yi ñëpp ko xam si ñun suñu kër rëbës c'est la maison euh, du bon Dieu sama maam Ibrahima Diack ñaari wax euh, barigo la doon teg ci bundu këram il était chef magasinier am wala le barigo dugub ak barigo ceeb rëbës ak tund bi ku soxla ñëw tibb ba 5 heures taaku san su mu tëj këram mais lu mu ramassé mu ne su ñëwee teg ko Maguette Diack ñëpp xam nañ ko fii dégg nañ ko mooy premier président de la fédération sénégalaise de football ba muy créé ligue de l'AOF en 48 ba mu ngi bàyyi fédération di créé fédération en 1960 6 millions de francs CFA la fa ci bàyyi mooy magu Lamine Diack mooy yar Lamine Diack mënul def lu dul noonu Alioune Diack magam mu ngi dund il a 100 ans nekk na entraîneur foyer nekk na inspecteur général de la poste kenn mosu ko dégg ci lu ñaaw Lamine Diack donc nekk na ministre. nekk na athlète nekk na secrétaire général fédération président comité olympique membre du CIO président fédération internationale xam naa nag nanguwuñu nit ku ñuul am raaye yu toll noonu ba empereur du Japon émir du Qatar président Russie ñëpp di ko gis di ko bëgg di saafonte ak moom Vladimir Poutine su gisee góor gi da kay nuyu foon ko mos ngeen gis Poutine fóon kenn yéen ci monde bi mën naa leen jox photo léegi wan leen ko su koy nuyu da kay fóon donc kooku soo amee gëdd bu mel noonu euh, am dayoo bu mel noonu bu ko jéem a yàqal sa ko santul gërëmoo ko ci li bu def bu ko xarab li tubaab yi def yëpp xarab nit ku ñuul la xarab nit ab jullit ab gor tuuma la mu muccul benn gor danañ ko setal nag bu mu wëcc danañ dem ak ñoom ba mu fa mu yem léegi pour tontu question yi gars yi posé euh, Walf Fadjri moo njëkk laaj affaire racisme racisme moom loo xam ne suñu joueurs yi ñu ngi koy dund ci terrain football yi club yi ak yooyu euh, ñu ngi koy gis ci sport bi euh, euh, fédération internationale de football tey ki fa nekk jigéen la sénégalaise la Fatma Samoura di ngeen gis lee léeg ay dépêche lu ne ñu koy bind ci moom am na benn jour sax mu recevoir El Hadj xam naa la ñu ne ay mbokk lañu moo tax mu signé ko contrat di yeñ Euh, patron Gianni Infantino tudd nañ ko ci procédure foofu ca Suisse kenn kenn kenn kenn du ko attaqué ba ñu demee congrès FIFA bu mujj bi journaliste africain amuñu droit poser question amuñu loolu moom seen gëstu ma jox nañ ko Richard Naham moo ko yónnee bindal ma ne ma journaliste yi fekkee congrès FIFA kenn du wax africain yi ñëw nañu mettre la CAF sous tutelle ne dañuy gëstu CAF ndax mooy confédération boo xam ne doxul donc racisme ci sport bi bu mu leen bett waaye nag tontu yàllaa gën parce que ba ñuy attaqué Lamine Diack en 2015 at bi ci topp yàlla dogal Fatma Samoura benn doomu Sénégal nekk secrétaire général FIFA muy poste bi gën a puissant ci sport mondial tey président FIBA benn malien la euh, sa baba mën nga ma ko seetal xam mu tudd monsieur Haman xaw ma wala Aman Ña donc Ablaye Seye Moro nekk na président FIBA Diagne Ndiaye ma nga euh, comité exécutif bu CIO fexe na ba indi jeux olympiques de la jeunesse fii ci Afrique donc yaa ngi ma bañ di ma xarab waaye yàlla ngi may teel Sénégal moo nar njëkk organiser jeux ci africain te ñoo gën a new économie ñu ngi bokk ci économie yi gën a ndóor ci monde bi kooku mooy dogalu yàlla donc racisme moom noonu moom day tax góor góorlu man loolu laa jàpp joueurs yi li ñuy dund metti na ñun ñii li ñuy dund metti na waaye noonu mooy day tax a góorgóorlu rek bi ci topp affaire droits humains ak yooyu wax naa ko ba pare samay avocat danañ ko layoo te danañ dem ba mu sës Alxasan ba bu TFM nee na dootoo bàyyi dara mu jàll effectivement euh, li ñu bindal mën nañ ko tontu ni gars yi di def woo benn journaliste fay ko ne ko bindal ma lii joxal ma lii na fiital ma lii ci site beeg yooyu mais mën nañ ko man dëkk naa Nigéria Nigéria dafa am benn association bu tudd Sports Rights Association of Nigeria SWAN am na trois cent 350 journalistes sportifs Michel Obi ak Dan Ngerem ñi ko jiite foofu Nigéria samay xarit lañu dëkk naa Nigéria diggante 1999 euh, ak 2003 yor fa société ñu naan nit ku ñuul kii euh, sénégalais bi ñëw fii di jël contrat yëpp ñu koy nommé par conseil des ministres normalul dañ koy xeex man leen ah mbaa baax na fu ñu bindee damay woo. journaux ade auditeurs keene journaux yu yu tàng ak journaliste yu ay daal seen kaw organiser benn euh, tea party xam ni ñu koy waxee seen teg ay brochette ñuy naan seen yu sedd yi ñoom seen ay na kenn seen ji nag tonique yooyu ñu waxtaan mën na ne bàcc leen li bind leen li ku yëkkati kuy dem ba yëkkati jox la 30 000 naira suba sedd ñu attaqué ministre bi attaqué ñëpp ba méthode bande yooyu xam naa ko <laughs> mën naa ko de mais dañ ma ci yaral contexte bi moo ko permettre doomu jullit laa mu nekk Sénégal nekk ci ndigalu Cheikh Modou Mountakha Mbacké Sëñ Abbas Mbacké am loo xam ne kenn du ma ci dégg moo tax du ko def mais mën naa tontu c'est très facile oo oh, li commandité bindal gis naa sax sama xarit journaliste nit kilifa woo ko ne ko bindal lu ñaaw ci masta mu ne ko du ma ko def ndax xam naa masta masta xam naa lu mu sañ ak lu mu sañu donc léegi nag dépêche yi ñu leen di jox ni ko Aliou Golo ko waxee ci benn émission nee na opinion publique sénégalaise médias occidentaux yi ñoo ko façonné lu ñu leen wax rek ñu jëm ko ne gongo mais tubaab day fen euh, fen ñu ci bi ñuy attaqué Kadhafi bi ñuy attaqué Saddam Hussein ne dafa am ay armes de de destruction massive ñu attaqué ko général Colin Powell a xaw ma kan dam ONU wax ne dañ ko war kii George Bush naan daf leen def ko comme sax ñu mu motiver attaque bi Sarkozy ak de Cameroun fenn ñu ci Libye pour ñu justifier attaque OTAN ci kaw Libye ba rey Xadafi donc dañuy manipuler alors procès bi nag li may ñaan rek mooy ku ci xamul dara mais ñëwal laajte man tey def naa conférence de presse dossier bi liir naa ko il y a peut-être trois ans mënuma ci wax lu bari nii parce que liiruma ko justice française ba ñu dàqee procès bi le 13 janvier ba le juin dañoo bañ ne dañ may jox euh, dossier pénal bi ñoo ma ko jox le 3 juin à cinq jours du procès 9600 pages ma war ko lii si juróomi fan pour seet nu ma layoo mag sama avocat yi ñuy jokkalante parce que avocat yi nekk fi mënuñ dem ñu ngi dem bureau Ali Fall di def réunion de crise ak Moussa Sarr di bind ay notes di yónnee parce que 9600 pages yu jox ñu ko bëri ñu bañ ne ñu ko jox kon nag li ñu def ni ñoo ko tey yàgg nañ ci léegi nag su fekkee dafa am ñu ñu koy loo ma avertir leen de porte plainte Moussa Sarr di ku mën na ko la def Ali mën na ko def ay pénaliste lañ fii mbaxane benn mën naa fa dugg mais mosuma porté benn journaliste xam naa lan pour man journaliste ay partenaire lañu sport mondial sa gisee moo am doole tey xam-xam ma ko fa yóbbu média yi Juan Antonio Samaranch liggéey na ak moom c'est président CIO ma ngi ca àjjana euh, nit ku baax ku fonkoon Lamine Diack Kéba mbay ak ay ak Afrique ak Lamine Ba dafa toog ne CIO mu ngi gagné cent millions de dollars ci programme top mais Jeux olympiques ba tey amul gëdd gi mu war am léegi su ma bëggee Jeux olympiques am gëdd damay fexe ba 30 euh, pour cent sama budget li ma gagné ci 100 millions 30 millions yi naa ko def ci hôtel bu baax pour journalistes yi naa leen defal centre obi euh, centre média centre bu baax defal leen ay conditions de kii ay salle climatisé ay connexion internet defal leen parce que su ñu nekkee dans les bonnes conditions euh, Jeux olympiques am am am gëdd. tey looloo indi CIO e am na presque deux milliards et quelques de francs suisse ci keesam programme top bi man nekkoon naa ISL marketing liggéey naa fa juróomi at euh, benn sponsor bi ñuy commencé ñu ko doon jaay deux millions dollars euh, Jeux olympiques Barcelone ñu commencé jaay vingt millions Atlanta ñu ne cinquante millions de dollars ku fayal doo doo bokk nank-nank deux millions lañu commencé mais médias yi ñoo ko def man moo tax bu suma porte wala nga jaayal ma benn club wala nga jaayal ma benn joueur parce que sa publicité laa soxla su ma la attaqué tey ëllëgee si biir su ma ñëwee noonu da nga xam yow yow bu woon mu yor dama naan su fekkee ne wóor na ma ne li ñu ma def du dëgg damay maanu bàyyi yàlla mu àtte loolu laa mos mu mosuñu dëgg Pape Master Diack a porté plainte contre un journaliste j'ai fait vingt huit ans dans le marketing sportif Nigéria du kii Nigéria dama doon defante ndax dëkkuma fa Afrique du Sud fekk nañ ma teg teg ma euh, fetal stade FNB Stadium match Orlando Pirates Kaizer Chiefs ne ma depuis bi nga fi ñëwee dañu gis ne contrat yi Pamod si li ñu koy jox dafa mel ni gars dañu lay nàkkal xaw ma nag lan mais sa fi toogee mag kuweeree kuweeree dañu lay génnee dëkk bi dañu lay rey ma leen ah waaye yéen laajte leen Mandela moom fi indi ak Steve Chouette ñu ne ah bon leen dem leen ci moto bi Cham Zache directeur cabinet Steve Chouette man Mandela moo demandé. góor gi ne ko sa doom ji dafa ay ci marketing scientifique nit ku ñuul li mu bokk ni bokk na ci ñi gën mën ci àdduna dama bëgg mu toog fi ñu def ko conseil ministère des sports mu jàppale ñu ma toog te fetal lañu ma teg si fin de match def dafa tiit dafa yënga Nigéria Afrique du Sud ku fa dëkk mën nga dëkk fu ne j'ai cent huit pays dans ma carrière téeméer rek fukk ñett dëkk visité laa musuma topp benn journaliste xam ndax lan tey ki may xarab suba moo may tagg grand Pape Dieng mu ngi fii ak sama Pape Ndiaga Sam xam nañu Pape bi ki lay xarab tey fexeel ba ràññee Sénégal am na loo xam ne su ko defee lu baax ki ko war a xam dana ko yëg dana ko xam kooku su xamee baax na jarul ngay wane sa bopp jarul ngis ta man lii su dul instruction judiciaire li may wax nii rus naa ko wax utal naa sama kuréel Pape tàngam wallaahi rus naa di ko wax ndax barke laa ci athlétisme amul dara xaalis football la nekk foofu nag moom damay ñafe di kii ñuy rayante di mbëkkante parce que les enjeux sont puissants ñaar téeméeri milliards ak juróom-ñetti fukk milliards dollars la ñuy def ci football ak bu nekk lu ne ngay gis cokki xeex rayante waaw parce que xaalis moo bari waaw mais nag athlétisme cinquante millions de dollars vingt cinq milliards CFA comme trente milliards par année mooy budget club Al Ahli wala Zamalek jarul xiiroo ngaayoo lii ku ci mënul maanu nag sa ñu mënul jàppale mais maanu ci ba euh, euh, Platini amee problème Manuel Valls moo ko njëkk a moo ko njëkk jàppale François Hollande jàppale ko toog nañu enquête préliminaire trois ans fi ñu enquêté Platini trois ans ñu fa enquête juróom fukki fan pour Lamine Diack donc loolay wane ne ay raciste la ñu comme pour axaru oa wal dañuy dem ma jeex tout a fait mooy expression bi procès Sénégal moo gën parce que man fi laa dëkk samay société société sénégalaise lañu lii la ministre Kilate Kaba wax lii la naa la ko sa bëggee ñu defal la ci copie comme ça ay waxu Sénégal nanguwul mu ñëw ak Sénégal nanguwul mu dem yooyu waxu kaso kaso la nañu ko teg fële Sénégal république du Sénégal la tudd suñu magistrat yi nga gis fii ñoo gën a takk magistrat yi nekk France takk nañ njàng téeméer yoon code pénal bu France ak bu Sénégal benn la amul benn différence ñoo bokk ci lépp kon mën nañoo àtte àtte bi fi Lamine Diack mën nañu ko dellu si léegi mbir bi siiw na tuumal nañ ko ba pare mais bàyyi nañ ko bàyyi mu defar waaye nañ ko bàyyi mu muy dem ak ñëw gis njabootam di yeewu rëbës la dëkk mu ñëw taxaw si booru géej gi feex lu tuuti fàtte affaire suñ koy woo ñu woo ko mu ñëw tontu leen parce que moom dafa war a honneur li mu liggéey ci 39 ans mais bëggul mu nax saay man li ma liggéey ak moom juróom-ñetti rek laa bëgguma mu nax sa waaye nag li ma liggéey ci sama carrière vingt cinq ans mais bëgguma mu nax sa bëgg naa comme li gën a dàqal ñu ci agriculture bëgg naa dellu ci football jàppale CAF CAF temps dafa am problème amatul agent marketing jàppale fédération yi africaine yi may doon jàppale jàppale ay club ñu ne ma non non non dootoo exercer sport pendant dix ans waaye fais chier faaluma leen